ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen a boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy xew ci À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, 33 864 75 15. bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulillaahi rabbil aalamiin. wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamiin. sayyidina wa mawlaanaa al-makiin. wa ala aalihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkiin. asalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu. ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul am lil muridi xafidahu llahu taala waraha ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalam ak turam di nuyu ganam gii di njiitu réew mi président de la république Macky Sall di ko nuyu ci turu sëriñ bi ak mboolem délégation bi mu àndal bépp président sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu ci turam ak turu mboolem yoonu murit di ay rakkam ak i doomam ak mboolem ñi nga xam ne seen maam bi dañoo àndoon ak sëriñ Touba bam defar leen tofal mboole ci seen ginnaaw ak ci turu mboolem taalibe sëriñ Touba yëpp bàyyiwut kenn mi lay nuyu di sant bu baax di gërëm ci bis bii nga xam ne ñëw nga fi mboolem ñi nga àndal ñëpp nag te buñ ci tuddee eh, lim sax boo ci xesee dugg dangay ngay fàtte te tuddoon nañ ko waaye ñu ngi nuyu ñëpp daal di leen sant ci ndax buñ la xasee tudd rek tàbbi nga ci biir sëriñ bi nag bis bii nga xam ne dangaa ñëw ngir siyaare si ko day bis bu màgg ci moom ndax màggalu Tuubaa mooy bis bi fi Sëriñ bàyyi ko woon ngir liggéeyale rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam liggéey bi nga xam ne lépp lu mu am rek ci bis bi la ko amee mooy bis boo xam ne sëriñ bi dafa génnoon gàddaay dëddu lépp ñu génne ko ci biiri këram génn ko ci biiri bokkam benn génne ko ci biir ay taalibeem jàppoon na dañ koy sànki waaye fekk dafa dem ngir liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am fa juróom-ñaari at yu tegal ba yàlla dogal ab liggéey mat lépp luy ab nattu nag luy jàpp ne dana mettitil doomu aadama wala dana faat bakkan teg nañ ko ko lépp suñu borom musal ko ci ñu war cee jàngate lu bari ndax ba mu dellusee li mu njëkk wax mooy afawtu anil aadaai turan li wacci man nafaahum li xayri sarmadan lastu atbahu li mu jëkk a wax rek mooy jéggal naa sama noonu moo tax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké te daa wax ne Serigne Touba du ku ñuy ko ñuy xeexal ndax jéggal na ay noonu ku jéggal say noonu ak kenn du la xeexal ak say noonu kon ci loolu Serigne bi ne ne mu ngi fàttali ñépp li nga xam ne suñ borom santaane na ko ci alxuraan ci diggante nit ak noonu ndax xam ngeen ne liy jukk di wax ci kilifa diine yi ak di wax ci mbirum Sëriñ Tuubaa bari na lool waaye lim leen ci digal mooy idfa billati hiya ahsan fa iza lisi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa maa illa allazina sabaru wa maa kon ñu xam ne Sëriñ Tuubaa mbiram liggéey na ba suñ boom faye ko lim ko faye kon nag lim ko faye du ay wax moo koy far wala moo koy yàq wa shamsu radaduha fi l ufqi taaliatun an laa yara daw aha man laysa sa basari sëriñ bi nag noonu la liggéey la ba dellu siwaat ñu yóbbu ko Mauritanie mu am fa juróomi at mu am si ko indi ko mu nekk ba ñibbi si Tuubaa moom dundam gépp ci àdduna mës sa liibar mës sa noppalu mës nekk ci afiya waaye lépp nag dara war lu koon lu may xeetali jaam yàlla yi ak yërëm leen ak bëgg leen ram bu ëllëgee moo tax mu wax ne lawla alquran wa xidmatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa maslahatu aliyali wal ibadi ma bittu fi dunia laylatan waxida nee na ak alquran ak liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam du faraan ci àdduna génn guddi kon moom àdduna mosu koo jaral dara boo ngeen gisee nag suñ borom faye ko lii mu ko faye dafa jaayante ji bàyyi lépp te suñ borom gënal ko lépp mu jox léppam yàlla moo tax suñ borom faye ko lii mu ko faye moo tax nag Serigne Touba dafa waxoon ne yàlla suñ borom de liggéeyal naa ko liggéey boo xam ne dama faye àdduna ak àllaaxira nee na ma def ko ci sama bitu loxo képp ku ko fi sàkk su ku ne danga ko am daal di wax ne yaara fii ñëw ki nga xam ne adduna rek ko fi indi ak ki nga xam ne fi indi nee na ku ci ne nag lañ fa bëgg mënal naa la ko te dinaa la ko defal ki ma jaaxal daal mooy kii nga xam ne ni man yàlla def neexu ko kon loolu nañ xam ne Serigne Touba loolooy mbiram bindoon day wax ne anna man waasala nii laa li xaradin dunyawi nii fa innahu yakunu min al muqarrabin képp koo xam ne ñëw nga ci man te àllaaxir rek tax laa jug nga xam dara yi àdduna yëkkatiw suñu borom daan la boole ci ñi ko gën a képp koo xam ne ñëw nga ci man nag te àdduna tax laa jóg fa inna allaha yukrimuhu kon nag Serigne waxoon na ne amarani rabbi bi an usarriha bi anni malaasun wa masoon wa ximan fa man araada al xayra fii kilta yi daarani fa yalus bi suñ borom moomu digal xaman ma ne ma waxal mbindee fi ne ab yooyu waay ab kaay laa képp koo xam ne bëgg nga muccug àdduna ak àllaaxira ñëwal wéeru ci man kon nag loolu mooy li fi indi ñëpp kon nag président sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu jiitelee kàddu yooyu yi mi ngi yeesalaat di la dalal jàmm ci dëkk bi di la eh, sant yàlla lam loo waxoon ni la boo duggee ci dëkk bi nañ ci fas yéene ci sa yoon wu jëkk wa loolu rek lay fedd lewaat sant la yàlla sa borom ak sant le ko Sëriñ Tuubaa ndax nee na sa digg moom day loo xam ne suñ borom moo ko dogal ndax yàlla lépp lu am rek moo ko bi moo ko dogal ci ësal yàlla ci kàttanam nag moo dogal dajale leen jamono ndax nee na bi leen yàlla boole jiitu na muy tooge ci jataay bii yow itam booba nekk gu njiitu réew mi waaye nee na la xamee ba tey mu xam la ci yar xam la ci teggin xam la ci ak baax xam la ci ci fonk ko it di ko teral ngi jëm Sëriñ Tuubaa nee na loolee nag yàlla da ko def sa digg moom def ak cofeel ci moom cofeel goo ne xam na fu muy tàmbale waaye xamul fu yem ba yàlla def nag yaakaar jooju nga amoon ci moom bi mu ba tooge jotaayu Sëriñ Tuubaa bi yaakaar ji gën ko nee loolu nag moom bi fi ay kilifaam nekkee noonu la ko yàlla bi ne sëñu ta def sëñu ta bàyyi lépp dafa tënkoon ci seen kilifteef ba mu tënee ba ne fi nag wóotu leen fi di fi jënd Sëriñ Tuubaa laa war nag yaakaar jooju nga am ci moom moom léppam Sëriñ Tuubaa la moo taxoon nam la ko waxe woon mu jur sa mbir dénk ko Sëriñ Tuubaa ñee na nag fi mu toll nii la ko jëkk dafa teewlu woon sëriñ bi waaye léegi nag tàmbali na di la ñaanal ñaan gi it mooy nga am ndam ci liggéey bi ba mboolem li nga xam ne yéene nga ko ci Sénégal nee na nga am ko ni nga ko bëgg ni ko sa njort ci biir loolu itam nee na yéene jim la yéene lépp loo xam ne gis nga mu digal la ko rek lam ci jublu mooy nga am muccuk àdduna ak muccuk alaaxira ndax moom kat yàlla def na amul benn bëgg-bëgg ci àdduna lu mooy liggéeyal Sëñ kon yow nag ndegam yàlla dalaa booleek moom nga am tawféex jooju ci moom nee na lu mu la digal rek loolu la ci jublu kon nag nee na mi ngi salaat ak cant ak ngërëm sa digg ak moom ndax xam na ni li la war ci dëkk bi yaa ngi ci def ba def ci loo mënut firnde yi bari na am nga yooyu ci junj waaye liñ ci tudd moo ko ëpp ndax ci wàllu wér-gi-yaram rek boo ci ñëwee hôpital Modou Lo Fofana Seyni ñoo ngi cee def bâtiment bu mag boo xam ne mën na set milliards te ñu ko yor wax nañ ne mën naa am màggalu déwén mu àgg te boo ko teg hôpital bi mu fi sumboon loolu nag fànn yu bari def nga ko ci loolu lépp nag nee boo koy def ci dëkk bi dàkk ak bëggam ak dàkk bëggu Serigne Touba moo tax nga di ko def kon nag nee na moom mi fi nekkee Serigne Touba nag te lépp loo defee njëbaru Serigne Touba gi cant gi ak ngërëm la nee na moom la war kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee mu yem kon nag da ñaanal ci yàlla ci barke suñu Tuubaa mboolem somb xam ne am nga ko ci réew mi rek yàlla suñu borom kàttan la defal la ndimbal defal la ba nga bañ ci am benn gàllankoor wax na la ko léegi neen la saa soo ndam yi du yokk kon nag nee na loolu rek moo doon kàddu yi di la sant di la bu baax di jeexalit ci wàllu màggal gi itam. dangaa joxoon ndigal ministre de l'intérieur mu di ko taxaw moom itam ci sa ndigal def na ci li man ak def na ci li man ak limarut loolu lépp itam lu ci ne leeral naa ko sëriñ bi ba lépp xam na ko nee taxawaay yi ci def yépp itam ñu ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm di na ñaan li sëriñ Tuubaa daali woon ci liggéeyal ko daal yàlla nga tàbbi ci biir te mooy waq di xawaa ijal la si na daa fii xidmati waxab la xam maaraamu